xam naa ne temps bi moom ba dafa gàtt dama la doon bëgg a remercier di la féliciter ci liggéey bu rafet bi nga fi def vraiment te député yépp gis ko monsieur le ministre man waa waa Casamance dañ may woo ma wax ne ma nañu fi nañu nañu leen wax ne leen arrondissement de Sindian te loolu muy dëgg arrondissement de Sindian du tali bu baax du ndox du courant amuñu forage du dara dara dara dafa mel ni arrondissement de Signat da ngeen ko xaw a fàtte ñu buggoon nag ngeen bàyyi seen xel lool ci loolu ndax loolu daal vraiment jaaxal nañu lool lool lool te muy dëgg man dem naa ci fa ci benn village bi nga xam ne bu guddee amul réseau amul courant oto benn yoon la fay dugg ndax yoon yi baaxul benn yoon baaxu fa ñu buggoon daal vraiment ngeen jàppale ñu ci arrondissement de Signat bu ko defee nit ñi fa nekk ñu mën a tamit ñoom tamit ñu xam ne ci Sénégal lañu bokk frontière wu Gambie bi entre Sénégal ak Gambie am na fa village yi nga xam ne amuñu ndox dañu am problème ndox chaque fois te ci Sénégal lañu bokk amuñu ndox amuñu courant ñoom i tamit monsieur le su ñëw ci Boutoupa Camaracounda Boutoupa Camaracounda commune de Boutoupa Camaracounda am na plus de vingt village seen yoon baaxul dañuy am problème ndox ñu buggoon tamit ñooñu tamit bëggoon nañu ngeen jàppale leen ñu ñëw ci commune de Enampor Enampor onze villages moo fa ne amuñu ndox amuñu courant ñoom tamit problème boobu lañu am te seen yoon yi baaxul foofu laa doon wax keroog sama sama frère Doudou Ka nekk mu bàyyi ñu xel foofu ndax foofu dañu am problème boo xam ne bu tawee benn oto du fa dugg ndax oto bu fa dugg rek doo génn moo tax villageois yi dañu mujj obligé ñu jël seen euh, seen seeni bant yu ngand su tawee rek ñu baare ko pour oto yi bañ a dugg parce que nit mën na faa ñëw doo xam nu mu fa demee nga dugg pour génn mu nekk problème meññeef yu fay kii yëpp dañu koy ñàkk parce que bu tawee benn oto du fa dugg ñu buggoon nag ngeen jàppale ñu ci loolu bu baax jërëjëf. merci mag